ba Seex Bamba wam sa sin ñépp far gëlëm mu toppi magam Seex Mustapha lépp daal di leer ñu déggoo juboo tey ànd lu wax mu daal di def ba bay tool bi mbay moo xam ne àll bi lépp leer jumaa ji borom Tuubaa digal nit ñi door dem mu ànd ci ak Seex Mustapha wi def dina leer mu ñotti firaay bi daal di woo nit ñi dénk leen na ngeen aw njërum jub moo doy mooy li wér te leer ba Seex Mustapha la ko ca dassa si mbir ma jóg ni Seex Fallu jiitul maa ngi topp ci yow bu leer Sëriñ Fallu àggal naar wi julli ko ñëpp bét mu ñotti Quran yi fépp booloo ne nañu leer aouzu billahi min asheytaan irajim bismillahi irahmani irahim wa sallallahu wa sallama ala sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi qurril mayamin wa man ihtada bi hadihi ila yawmi din mbokki mbokk yi nga xam ne ñoo safoo di seetaan seen télévision ñu ngi amaan mbégte mu tedd ci waxtaane jëmm ju sell jëmm ju tedd kenn ci njabootu borom Touba gi muy Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ñu nekk fii nag ci kër Serigne Abdoul Karim Mbacké jàkkaarloog suñu mbokk mu tedd moo xam ni kenn la ci mbokk yi nga xamante ne ñoo nekk fii ci daara ji muy Serigne El Hadji Sylla doon ab jàngalekat ci daara ju mag ji nga xam ni mooy daaray Serigne Abdoul Karim Mbacké moom Serigne Abdoul Ahad te ñu tuddee ko daara ji daaray Serigne Abdoul Ahad ni ko sëriñ musaa ko waxe woon rek bannu ball aqmaarun fal asiyaaxu anjumun wa ahmaduhum samsun araarat lana tuuba bannu ball ay weer lañ sëriñ beedi ay sëriñ séedi ay biddiw sëriñ bamba moo def jant leeral na waa tuuba kon kii ñu waxtaane kenn la ci ñooñu nga xamante ni ab jant lañ woon yoo xam ni dañ noon fang ñu dina gis waaye mu doonoon kenn koo xam ni moom sëñ Abdul xat ku taxawoon diine la waaye ku taxu taxawoon njabootu sëriñ Tuubaa gi la waaye rawatina nag li ñu wax léegi muy daara kon sëñ alxaaji si la incha allahu taala bu ma dikkee yow mu basaratan dañoo bëgg nga dugal nu ci sëriñ Abdou Lahad Mbacké radiallahu anhu ni taxawaay bi nga xamante ni moom la aman daara ak ñooñu daara aouzu billahi min asheytaan irajim alamin wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina muhammadin lamin wa ala alihi wa sahbihi zawri diwaani wa tamkin asalaamualeykum mbokki jullit yi mbokki taalibe bi ñuy seetaan ci chaîne Bichri TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar ah pour tontu ci laaj bi ma laaj dana neex a wax ndax ku wax sëriñ Abdul Ahad ibnu Seexul Xadim kooku pour wax ci moom ci daara kon dana neex a wax ndax Sëriñ Tuuba dafa wax ne warasturaadiya xayral ilmi wa diini lépp lu génn xam-xam génn diine soxlawu ko kon képp ku bokk ci moom wala nga jokk ci moom kon ci ñaar yooyu rek nga war a dox muy al wa diin ah Cheikh Abdoul Ahad nag comme ni ko doomu soxna yëpp yi defee ginnaaw ba mu feeñee jamono ca Jurbel 1914 ba mu dalee tollee ci dal alquran al karim nga xamante ni mooy dalawaay bi ñu war a njëkk a dal képp koo xamante si ni yaa ngi wax ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ndax fa ñu koy teg mooy iqra bismi rabbik kon loolu lañu war a njëkk a xamal képp koo xamante si ni dafa soqi ci islam waa ah, waajuram dalal ko alquran al karim mu dem fàggu ko fa fa ka doomi soxna yi daan fàggoo ah ba mu ko wattoo ba pare mu ñëwaat ci Cheikhul Xaddim ngir mu natt ko ba xam njàng ma fa mu toll ah foofu nag am na lu xew lu yéemu lu fa xew ndax sëñ bi sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu képp ku njaboot gu ñëw toll ci jàng alquran daf lay nattu dafa la ixtibaar ba xam njàng ma foo ci toll waaye ba mu see Abdul Ahad ñëwee Sëriñ Tuubaa natt ko wax na ne sëriñam bi ko doon jàngal dafa xamal Sëriñ Tuubaa ne ko si Abdul Ahad kat mokkal gi dafa xaw a yéex ci zaahir ba bañ wax ne Sëriñ Tuubaa la anhu boobu la ko woo daal di jàng ñaan di ko tëfli ci gémmiñam def ko ba mu ñetti yoon bañ ca pare nag foofu la jóge lépp lum liir rek lum xool rek da koy daal di xam fa la jóge dootul fàtteeti dara xam loolu kon ak jagleel la ah, ginnaaw wattoo tiira alxuraan ba pare nag kon xam na ni daara yi boo wattee alxuraan ba pare lañ ca war a teg mooy téere xam-xam yi li jëm ci wàllu sharia ak xaqiiqa noonu la ko daal di defe ba macha allah géeju ci bépp fànnu xam-xam ba képp ku ko xamante ni yàlla dogal na nga daj ay diwaanam yoo xamante ni sëñ sëñ Abdou Lahad ci boppam moo ko way danga xam ni képp ku liir ay ay ay diwaanu Cheikh Naan nga xam ni kii ci baat yaag maana maanaa ya xam ni kon kii fàggu na lépp lu jëm ci wàllu luxa ak lépp jëm ci wàllu sariyaat islaamiya waaw ah, ba noppee ci loolu nag mu doxal alaaxa bi nga xamante si nii mu la fi Sëriñ Tuuba bàyyi woon ndax yàlla dafa am lu wax ci alquran ndax dañuy baada baada auzu billahi mina shaytaani rahim wax fa xalafi mbaadim xalfun adaau salaata wattabau sahawaata fa saf xaw na xayya si ab laxar xamee loolu nag la daa toog loolu fële moom daal di topp li nga xamante si nii moom la yàlla santaan ci alquran walazina daal di topp ah. moo tax mu doxal relation boobu sëñ Tuubaa amoon ak ñooñu daara ak ñooñu waa alxuraan ndax Serigne Touba sa Jurbel mas na woote bañ ñëw mu ne ana ñuy jàngal alxuraan bañ ñëwee teew mooy leen na ngeen xam ni ñi ñooy samay waay mooy jàngalkat alxuraan yi ah sëñ Abdou Lahad nag moom itam daal doxal loola fonk gi mu fonkoon alxuraan ak bëgg gi mu ko bëggoon ak tamit xam gi mu ko xamoon képp koo xam ni ngi yaa ngi suivre discours am yim yi muy def da nga xam ne ku dégg alquran la li ñuy wax tafsir ndax tafsir dafa bëri ay façon xëy na mun duggee ci ilmul tafsir danañ ci yaatal ndax dafa am tafsir quran bil quran ak tafsir quran bi na ak tafsir quran bari na ay kii waaye moom façon tafsir bi mu taan def da ngay da ngay wër kutubu tafasir yi doo ko ci gis ndax dégg gi mu ko dégg te yàlla suñu borom jaglee ko ko ah, fonk mu fonk tamit day wane ne li ci firnde rek mooy kër geemu sos Touba nekk ci penku jumaa ji tudd ko këru alxuraan nga xam ni loolu xëy na boo doon wër dana néew lool ñu ko ñu ñu ko ñu ko ñu ko ñu ko jagleel loolu alxuraan kër goo xamante ni xaasatan li xuraan ah ba mu ba mu defee loolu ah, ñu jël alxuraan muul ko tasaare ko. daal ko fay teg nga xamante ni képp koo xamante ni aajowoo nga gëstu ci alxuraan ak yeneen téere xam-xam moom mu diin boo ñëwee da nga fa fekk ah, moo tax it tamit yàlla fayee ko loolu ndax ba mu génnee àdduna ah fa ko daal di denc mu dëkkaale alxuraan kon loolu day wane kon liggéeyam bi mu defoon alxuraan la ko yàlla fayee. waaye tamit ku xam sëñ Abdou Lahad da nga ko xam ak relation bi amoon ak képp koo xamante ni rek yaa ngi borom xam-xam ndax sëñ Tuubaa dafa am ñu jàngaloon dañuy booy ànd ànd da nga ànd ak koo xamante ni da jariñoo ci moom ci wàllu xam-xam ak ci wàllu diine ak ci wàllu àdduna waaye moom sëñ ab Lahad koo xam da nga xam ni relation bu rëy la amoon ak ñii tudd tey këru diine këri diine yi nga xamante ni képp koo xamante ni rek yaa ngi tuddoo diine diine islaam suñu Abdul Ahad amoon na yow ak alaaxa bu dëgër dëgër dëgër dëgër nga xamante wax nañ ne sax am na ñoo xamante ni ci waa kër suñu Tuubaa yi da loon bisu bis boo xamante ni xaas la di leen dem di seeti wax nañ tamit ñi nga xamante ni dañoo jàng alxuraan suñu Abdul Ahad jagleel na doon loo xamante si nii ndax euh, wax nañ ne barabu suñ Tuubaa bi dañ fa def sa bis bis bu ne danañ fa wàcce alxuraanu karim loolu boobu la tàmbali kon loolu day waree na rek fonk gi fonk ko fonk gi suñu Abdul Ahad fonk alquran ak diine ak wala musariya ak ak ak war la ci aju yëpp waaw ba tax na tamit njabootu Sëriñ Tuubaa gi tamit seeni njaboot waa kër gi waa kër Sëriñ Abdul Xaadir waa kër Sëriñ Suhaybu waa kër Sëriñ Murtadaa waa kër Sëriñ Saalihu ndaw ña képp ku ci mata dal alquran si Abdul Ahad mu la jëlal boppam dugal la nga jàng alquran soo matee tolloo ci jàng téere xam-xam mu boole laa ko la ko jàngal waaw loolu loolu loolu ku ku ku dem ci kër yooyu da nga da ko xam. te yàqul woon ci relation te yàqu te àdduna dara ndax li ci firnde rek ku xam relation bi amoon nag waa àdduna ñi ngi ne tey kilif euh, gouvernement bi dale ko ci Senghor nga xamante ni fekkante nañ fi donte ko yàggul waaye kay toppaat muy euh, abdu Diouf alaaxa bu rëy la amoon ak Sëriñ Abdou Lahad ndax li mu ko daan irsaad yi mu ko daan def di ko di ko ak conseil yi mu ko daan jox féetuwoon ko wetu wetu wetu wetu baay mën naa wax loolu. ba tax na Abdou euh, Abdou Diouf def na plus de maanaam trente visites yoo xamante ni da ko daan def si Abdou Lahad di ko di ko seeti par trimestre la ko daan def la la ko daan seet la ko daan jagleel kon alaaxa bu da koo sàmmoon. ak alaaqa séqoon tamit ak ñi nga xamante si nii duñ ay duñ duñ duñ même duñ duñ duñ ay duñ ay jullit. wasaawir mhm. fi amri kooku moom si ab ku boo ñëwee ci moom danga moo ci ñëpp mhm. ndax daana wax ne su ma su su ma juumee na xam ne mbooloo moo juum mbooloo moo juum loolu li muy wax ne mooy da daan diisoog nit ñi ba pare dafi mu nekk nii am na problème yoo xamante ni da xew ci réew mi bu ñu ko waxee sëñ bi bala ma ko bala ma cee wax dara yëkkati kàddoom dana lijjanti. li support yi la ca xew ak lépp lépp képp ku man xam ni bu la laajee da ci mën a wax problème bi lu ko commencé la ca am lépp dana laaj ba pare comme ni avocat yi def rek su ko defee ba mu xam ba pare soo ciy mën a soo ci mën a soo ciy mën a àddu. nga xam ne ni mu ko waaw di diisoo ak ñoom waaw noonu la ko amee ci wàllu gouvernement. ko amoon ci wàllu lu ci nekk da koy diisoo ñoom ci war a diisoo. mi ngi noonu noonu noonu noonu la ko amee woon. ba noppi tamit ak euh, ñi nga xamante ni moom laa waxee léegi këri diina yi nga xamante ni waa kër si maam alaaji alhaaji euh, Malick si ah waa kër si euh, Abdoulaye Niass amoon na alaaxa bu rëy ak ñoom ak waa kër laayeen yi amoon na bu rëy ak ñoom nga xamante ni ñu ko duggoon tey waxtu bi xëy na ma ko du xate waaye ku ci nekk amoon na alaaxa bu rëy ak yow nga xamante ni buñ ko mënoon tënk si ab laat ak ak yi nga ko waxee mohansara jamono tey da ko defoon lépp ci malaf maam ay dossier la ko defoon alaaxa ci wàllu digganteem ak suñu borom moom moo ci mënoon ñëpp digganteem ak boppam ku xam ku ko xam si ab Abdoulaye fonk boppam ak bëgg boppam da ko da ko da koo ak tamit alaa xam diggante julli ñi tamit ak alaa xam diggante ci bi julli ñi ni nga xam ne ay murid lañ nga xamante ni képp ku di diglu discours am bu nuyoo ni kilifa àdduna yi ba pare day jagleel nuyoo xaas boo xamante ni taalibe yi la la nga xamante ni da ko da ko am ak alaaxa tamit nga xamante ci wàllu ixwa la ñu bokk Serigne Touba alaaxa boo xamante ni bu mag a mag mag la ci amoon rëgatir bu mag non wàllu euh, euh, li ñuy wax économie tey si ab Cheikh Abdou Lahad bëri na ay commerçant yu mag tey ci dëkk bi si Cheikh Abdou Lahad moo leen woo garanti leen jox leen fonds ne leen dem leen liggéey nga xam ne bu jamono joon Dakar Ndakaaru tey muro ji taxuñ ko woon a ñeme waa Cheikh Abdou Lahad moo tax ñu ñeme ko ndax moo leen woo ne leen dem leen Ndakaaru ngeen liggéey fa ba noppi dooleel leen ba tax yi grand commerçant yi gis fi yëpp personnalité yu mag ñi yëpp waaw li ci njëkk muy bëgg sa bopp bëgg sa bopp dafa dafa dafa baax ci ab ab jullit Seex Abdou Lahad Mbacke koo xam ci zaahir nii rek col gi da koy wane bëgg sa bopp ndax nit ki respect fi fi mu njëkk ci nit moo ci wàllu mësër ndax day nit bu doon 100 pour cent la 70 pour cent yëpp wala 80 pour cent ci mësër la maanaam li liy feeñ ci bitti la ya mooy liy feeñ ci bitti liy feeñ ci bitti moo ëpp solo ci ci doomu aadama sëñ Abdoulaye da koo da koo da koo joxoon fulla lool ba tax col gi koo gis ba tax na xale yi da ngay gis ko ci sol euh, li ñuy wax bàyyi laat waaye day ci mbedd dañ ko jox dañ koy jox cër loolu loolu fitna la ah, waaw loolu loolu waaw bokkoon na sëñ Ibrahima dañ daan def waaw euh, xamal nit ki boppam xamal nit ki boppam ci wàllu jikko surtout ci jikko ndax jikko dafa am solo ci nit ndax yàlla dafa wax ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko wa innaka la ala xuliqin azim sayyidatuna Aïsa radiyallahu anha bañ ko laajee yonent bi la moo nekkoon jikkoom dane kaana xuluquhul xuluquhul quraan jikkoom moo nekkoon alquran si Abdou Lahad Mbacké li gën a am solo ci nit muy jikko la doon defar ci doomu aadama gëm na la suba xam na la yaay kan xam fi ngay teg sa tànk xam li nga bokk ak li nga xamante ni yaa ko moom ak li nga xamante ni soo yoon néew ci ak bëgg Sëñ Tuubaa moom si Abdou Lahad Mbacké moo ci rawoon ñëpp ndax li koy firndeel ñu waa ko Sëñ Tuubaa yëpp sax la ndax ñoom ñëpp kenn mësu dégg kenn muy wax sama sama sama sama baay sama sëriñ bi rek la ñuy wax sama sëriñ bi la wax ndax ñoom ñëpp seen juró lañ ko yaay ñeenti ko ak taalibe waaye moom bëgg bëgg sëriñ Touba daf ko defoon lool lool lool lool ba ci mu jëf ko tamit teg ci ndax ku gis Touba tey ni mu mel ni mu mel tey nga xamante ni ñun ñi nga xamante ni ñooy mujjee juddoo xamuñu lan mooy cigarette xamuñu lan mooy alcool wallaahi laa si man alcool yi mënul laa xam ni tudd sax mosuma koo teg bët cigarette waxi noppi yàmbaa tey waxi noppi loolu grâce à Sëñ Abdou Lahad waaw waa Touba xamul tey yooyu moom moo taxaw xeex ci ba yooyu yëpp dañ. nga xamante waaw yi tamit ndax ba mu jumaa ji yaatal gi la njëkk def ak euh, li nga xamante ni ndax ku wax dëkk dëkkuwaay tamit wax wàllu ndox assainissement wàllu ndox nga xamante ni dafa wut ay forage yu mag ci ci dëkk bi ah, nga xamante ni nit ñi ndox mi dana mën a baawaan. ba noppi tamit wàllu tali ak wàllu courant bi yi nga xam sëñ Fall moo ko yaat moom mu ñëw yaatal ko ak ñi nga xamante si nii wàllu corniche yi ak mbedd yu yaatu yi trente yeeg yooyu ak hôpital yi ah ah nga xamante ni tey li ñuy firnde rek tey muy université bi nga xam ne suñu si département mi ngi koy woote nga xamante ni ci jamono moom moo ko créé woon xëy na kon xamoon na ni ndax ñoom dañuy am basiira xamoon na ni kon jamono dana ñëw danañ ko soxla mu créé woon ko ak armeel yi nga xamante ni bi muy nga xamante ni moom moo ko daggoon nga xamante ne jii gis nga tey ñu ngi koy ubbi di dafa commencé di di denc nga xamante ni yëpp tey xamoon na ko moo tax woon mu fàggu ko kon moom ci wàllu plan ak wàllu assainissement suñu borom da ko cee mayoon. Euh, jërëjëf jërëjëf sëñ la Sylla euh, mboolem mbokk yi nga xam ne ñooy topp seen télévision ma fàttewul Bichri TV dégg ngeen kàddu yu am solo yooyu nga xam ni sëñ Alaaji wax na ko te muy aspect yu bari yoo xam ni. dugg na ci sëriñ Abdou Lahad nga xam ne danañ ci déggee ne sëriñ Abdou Lahad euh, bokkoon na ci góor yàlla yi nga xam ni sëriñ Tuubaa daf leen a waajaloon ndax di nga ni mu ko waxee ni nga xamante ne noonu la taxawoo woon daara yi ni nga xamante ne noonu la taxawoo woon ni euh, nga xam ne ñoom la bokkal Serigne Touba bi nga xamante ne doolagul sax xalifab Serigne Touba waaye bi mu doon xalifab Serigne Touba rawatina ni mu ko waxee léegi ni nga xam ne noonu la taxawee woon daaray kaamil yi nga xam ne ca daaray kaamil yi Touba la ko tàmbalee waaye ba ca daaray kaamil yi Njaareem ak mbooleem daaray kaamil yoo xam ne ñoo nekk ci daari waa kër Sëñ Touba yi nga xam ne loola daa doon lu am solo loo xam ne ak dundal gi xam-xam gi xam ak it euh, personnage bi nga xam ne doon na ko jox doomu adama yi kenn ku nekk mu xamal la sa bopp ndax nit ki xam boppam day tax mu gëm boppam kenn ku ne ndax daan na wax ne noonu ay murit lañ yem ay saadex la ñu doon sëñ Tuubaa dañ koo bëgg bëgg gu wóor gëm ko gëm gu wóor doyloo ko doyloo gu wóor nga xam ne loola tey dafa mel ni mooy rogalaat di toq ba ci maanaam ba ci ba ci ba ci xoli xoli murid yi nga xamante ne ñoo yaakaar sëñ Tuubaa waaye gis nga euh, gis bu rëy bi nga xamante ne moom la gisaan mooy fi nga xamante ne xamal na ne tey euh, bu ëllëgee xam-xam foofu la war a toll moo waral gis nga sëriñ tubaa ay waxam saa su nekk dafay mel ni ku ko fi nekk rek da nga koy firi xam nga Sëriñ Tuubaa am na fu muy wax ne yaral xafaaya bi aynil xalbi saahiratan kama yushahidu ma taxtal akinaati mooy li sëñ Alaaji doon wax léegi mooy ñoom dañuy gis loo xam ne ñëwagut ndax tey euh, nii ko mbokk mi waxee bu fekkee def fundaare kamil tey tey jii fur fu ko def mën naa doon wala tey jii bu fekkee defu fi woon tey armeel yi amaana loolu lépp mën naa doon problème waaye gis nga tey li nga xamante ne moom la ñu defal muy liggéey bu am solo boo xam ne sëriñ Abdou Lahad Mbacké na ko fi gis nga ko brigade bi nga xamante ne moom la fi def nga xam ne booba fi jamono toll fi Touba toll nga xam ne doyan na waar doy waar goo xam ne wax nañ ni lu xoromoo xoromu demal na ba nga xamante ne dañoo waxal ni sëriñ Abdou Lahad de day indi ay xaj ci dëkk bi mu wax ne waaw xaj moom morom xajam rek lay lay lay lay seet nga xam ne ay ay xekk ma ay xikma ñu blaat fees le woon ko dell ay waxam képp ku ma sa dégg asalaamaaleykumam da nga xam ni kii wax maanaam ku suñ borom jox kàddu la waaye ku suñ borom jox ak woote la muy woote goo xam ne ñëpp dañ ko koo nangulan euh, saa su ne dinaa koy faral di wax bu fekkee tey nii jamono deme tey la suñu blaat lijjanti woon na ko démb ndax bu dee mbooloo la li ko tënk suñu blaat waxan na ko daa waxan ni as gor su jaayee boppam te yaakaar a jot te njëgg moomatu ko daan na ñun moomu na suñu bakkan moomu na suñu alal suñ lépp suñ tubaa ko moom daan na ñun de saxaaba yi ñooy suñ bàyyi ci diine daan na saxaaba yi nag ñoom waruñoo gën a gore ndax bi suñ borom waxee ne inna allaha astara minal mu'minina anfusahum am amwaalahum bi anna lahumul janna ci saasa moom da leen a war ñu tuur bakkan nee ñu tuur deret joxi seen bakkan tuur deret daan na ñun nag li nu li nu li ak ñoom ñun sunu jaayante daa juum suñu jurug dund kon moomatu moomatuñu suñu bakkan moomatuñu suñu alal suñu lépp suñ tubaa ko moom waaye gis nga wax yu am solo yi nga xamante ni moom moom la doon wax daan na wax ni gisaguma benn taalibe boo xam ni dafay ñëw di ma jàmbat mbirum àllaaxira te loola nee na laf gi ngeen laf àllaaxira ak wóolu gi ngeen am sëñ tubaa xam ne lu ngeen di ragal dàqal na leen ko lu ngeen bëggee xëccal na leen ko loolu rek ko waral waaye daan na soñ taalibe yi ci ñu góorgóorlu ci liggéey daan na wax ni képp koo xam ne tal na fi noppalu tay la ko tal waaye bi fi sëñ tubaa di nekk kenn talul noppalu ndax da daan boole xëy ak jànq ak gont ak rañaan daan na benn bés daan na ci digle léegi ñu takkal ko am néeg nee na ci saa ñu takkal ko ko nee na nee na am na kaamil boo xam ne ci ñetti fan la ko la ko la ko la ko santaane ndax nee na booba ñaar fan ak juróom-ñaar la ci weeru koor te nee na laataa ñuy taafeeru nee na jébbal nañ ko kaamil ba loola nga xam da doon wan taalibe yi ni leen nit lu muy war a def da cee war a am pastéef am ci himma te xam nga ne himma moom rek moo daan maye dara ci yoon wi kon euh, sëñ sëñ sëñ si la Euh, fi ñu bëgg a ñëw nag mooy Sëñ Abdou Lahad mii ñu wane nga xam ne kii seetaan xam na ni kii kët kon am na fu mu féetoon boromam kon tey ndaw ñi nga xamante ne ñoo fi nekk tey yaakaar Sëñ Tuubaa naka lañ war a def ban jikko lañ war a amee nan lañ war a def ba nga xamante ni tey jii ku leen gis danga xam ne kii kat ku Sëñ Abdou defat la yan jikko lañu war a ràngoo ngir mën a doon dëgg-dëgg taalibe Sëñ Tuubaa ku la gis xam ne kii kat am na ay jikko yoo xam ne ni ko suñ borom waxe woon ci yonent bi laxat kaana lakum fi rasulillah uswatun xasana waaye déglu nañ sëñ Abdou Lahad donte ñun fekkiwun ay jamonoom ñu déglu ko dund ci ay waxtaanam loo xam ne danañ mën a roy ci moom ba kono gis xam na ñun ay taalibe sëñ Tuubaa lan waaw euh, jërëjëf euh, sëñ bi euh, ndaw ñu ndaw ñi ndaw ñi am nañu royuwaay day wax ni Sénégal ñëpp war a wax ne amuñu royuwaay ba mu des ñun ndax dañ ko am ba mu doy sëkk te jamono fi mu tey nit ñi dañ dañ fee bàyyi ñi war a roy dem di roy ñeneen ñi ngi roy tubaab yi ñi ngi roy ñi nga xamante si bokkuñu ñoom diine di jël jikko yoo xamante si nii nekkul jikko yi nga xamante ni moom la islaam sant suñu Abdul Ahad radiyallahu anhu dafa wane yoon wane luñ mën a roy ci moom wax nga ko léegi li yàlla wax ci alxuraan laqad kaana lakum fii rasulillahi uswatun xasana mu waxaat ci beneen aaya waa wax ne laqad kaana lakum fiihim uswatun xasana li man kaana yarjullaha wa yawmal axir nit mënta ñàkk xudwa dañ ne ñuy euh, spécialité ci wàllu yar wàllu tarbiya li ñuy wax ilmu tarbawi dañuy wax ne xale faaw mu roye mu roy mu roy mënta ñàkk soit que mu roy ay parents walla muy roy ñi ci mbedd mi wala mu roy la ci écran bi li ci télé bi faaw mais ma mais mënta toog loxoy kese faaw mu roy dara loolu tabia xale la léegi nag lii tax mu roy royu am jikko yu rafet mooy nga conduire ko wan ko lam war a roy waaye ku ñëw ci sëñ Abdou Lahad li li ñu war a roy ci moom li ci la ma ci la ma waxoon léegi rek li njëkk mooy wàllu mësxër bi muy melokaan wi ndax am na yenn sol yoo xamante si nii bu ko nit dee sol premièrement moo njëkk xebal boppam waaye am na sol yoo xam ne boo ko solee des na la jox respect donte ko boo waxut kon loolu moo ci njëkk ba ca tege muy wàllu xam-xam kon képp kuy ndaw war nga saxoo sàkk xam sàkku xam-xam Sëriñ Tuubaa soo ngeen na ci ba tàyyi ci téere yi waaye tamit képp kuy ndaw war nga roy ci Sëriñ Abdul Ahad Mbàkke défendre sa gëm-gëm li nga gëm say principe nga am ay principe bu noppi défendre ko ndax mën nga wax ne jullit laa rek daal di bàyyee ko def la neex waaye boo ne jullit laa da nga ko war a dëggal ci say say cër say jawaare da cee bokk mooy nga défendre loolu ba jaral la xeex ndax ba mu waxee kii euh, tuuba dane sama bakkan laa ci gar kon nit ki dafa war a gar bakkanam ci wàllu diineem ak ak jub ak ci wàllu diineem waaye tamit roy ko tamit moom itam ci fonk doomu aadama ak jox ko cër ndax boo bu ñu xoolee image yi ab Abdoulaye dañ ko daan gis bu kilifay yi ñëwee danga gis ministre waxuma président de ministre mu toog ci kaw suñu ab laxa toog ci suuf loolu li koy nga ne mooy wàcc waayu gan dafa ko woon muy daal nga xam léegi problème bi nit ñi am nga xamante ni naan toog ci kaw ak toog ci suuf moom da ko réglé woon jotaay yi bëri ñu daan gis ci suuf da daan toog bàyyi ganam toog ci kaw yooyu defu ko woon problème yooyu wàllu tawaadoo la tawaadoo kon nañ ko war war rëccoo la te man taw euh, borom xam ne wax ne wa man tawaadaa rafaahu llah boo àccee sa bopp suñ borom moo lay yëkkati beneen bi ci des desaat muy wàllu muñ tamit dañuy wax asabru suñu abdullah dañ ko war a roy tamit ci wàllu muñ muñ patience ndax boo duggee ki dara moo xam ci wàllu jàng la wala loo mën a dugg bërëbu liggéeyukaay foo man dem rek patience moo la fay téye mooy nga muñ xaar ba la fay fekk fekk la fa loolu dañ koy dañ koy roy ci moom di roy ci moom tamit ci wàllu tamit wàllu fit wàllu fit tamit ndax ñeme am fit da day day jàll nit ki ci yu baree baree bari am na nit kuy dugg yoo xamante si nii fit rek moo ko cee jàllale kon lu ñu mën ci moom la tamit waaye tamit li ma roy ci moom tamit bokk na ca fonk mbokk fonk mbokk ndax ku xool leeru suñu ab Ahad yi da nga gis mu tudd leen ñi nga xamante ni dañoo àndoon ak Serigne Touba wala waa kër Serigne Touba yi loolu tamit fonk mbokk la ak ñi mu doon jëlee tànkam doon ziare ñi nga xamante si dafa bokk ak ñoom Serigne Touba ndax mbokk kat suñu borom dafa wax ni képp ku jokk mbokk ma jokk la waaye itam képp ku dagg mbokk ma dagg la kon dañ koy roy ci Serigne Abdou Lahad Mbacké kon daal ci gàttal bëri na bu ñu ko doon wax tey fii la ñuy fanaan si li mën a roy ci Serigne Abdou Lahad Mbacké waa kay jërë ngeen jëf mbokk yi eh, jërë ngeen jëf sëriñ Oustaz Sylla ñu ngi santaat yàlla bu baax a baax ci tawfiq ji nga xamante ni sëriñ bi defal nañu ko ci waxtaanu am solo wi nga xam ne doon nañ ko amal amal ci Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waaye ni mu ko waxee sëriñ Abdoul Ahad dafa doon doonan koo xam ni ni ko mbokk mi waxee dafa fonkan sunu borom subhanahu wa taala fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye fonk lool sëriñ Tuubaa lool ndax am na waxtaanam yu bari yoo xam daan na ko wax daane danañ julli naam danañ war da danañu woor naam danañu asaka naam waaye amul lu ñuy dërloo loolu sëriñ Touba loola nag doyloo gi mu doyloo woon Serigne Touba rek moo ko waral euh, ku ne xam na ne Serigne Abdou Lahad ak alxuraan kooku moom mbokk mi li mu ci wax doy na sëkk maanaam ndax defar lu toll ni daaray kamil def ci ay milliards loolu jàpp naa ne bëgg alxuraan fi la yam te xesa bu siiw boobu ngay dégg Serigne Abdou Lahad moo ko nettali woon daa wax ne Serigne Touba de moom loo ko yàlla moom loo tax na nit ñëw na ci moom jox ko kaamil mu teg ko ci dënnam daal ni ko kaamil bi da waw na koŋ waaye fa fare xan kasabtum nga ci suratu baqara moom nga fàttee sadda sëñ bi laa da caa teg ne te waat naa ci yàlla ni bañ ko yëree noonu la demee kon loola wane na ne moom suñu borom am na cër bu rëy bu mu ko joxoon ci alquran waaye li nga xam ne Serigne Touba daa waxan ne maanaam bu dee jëmm la ay tànkam mooy xaside yi sëñ Abdou moo ko yóbbu foo xam ne tey kenn mësu ko faa yóbbu Euh, tey lii nga xamante ni mooy mooy kuréel mën nañ ci moom la gën a jë ci ci moom la ji ci moom la jëkkee daanaka booy xool ginnaaw Serigne tubaak sëñ ma sàmba moom moom it mooy ki nga xamante ni bi mu ñëwee da koo dundalaat ngir amoon na kuréel boo xam ne kuréelu Serigne mbay Niang dañ ko doon jàngal guddi ak bëccëg suba ngoon ba ci sëriñ Cissé mu siiw mii ngay dégg sëñ Serigne Abdou bokk na ci ñi nga xamante ni ñoo ko génne waaye mu am lu am solo loo xam ne defaat na ko. te loola ba mu koy def dafa am lu taxan mu def ko muy walafal yu am solo yoo xam ne Serigne Mbaye Diakhate da koo defan ndeysaan euh, maa ngi ci siyaar baax sëriñ Abdou Lahad Touré nee na daf bi mu ko jàngaloo da koo wax ne Abdou Lahad mu ne ko Mbàkke mu ne ko na wér te wóor ndax lu ñuy déglu daa war a wér war a wóor wax nañ ne ba mu ko defeet kaset yooyu da ko doon jël di ko jox ay kilifa daal ne nit di dana toll foo xam ne kenn du ko yedd waaye kaset bii ku ko déglu mu doon sa yeddeel kon sëriñ Abdou Lahad ku déggan sëñ Tuubaa la waaye ku sonnan ci xasida la yóbbu na ko foo xam ne tey bari na diiwaan yoo xam bu ñu ci jariñoo sëñ Abdou Lahad tax xekk ma bii ñuy wax sëñ Abdou Lahad moo ko dajale ak yeneen i diiwaan lu mel ne diiwaan nuuru daane ni nga xam ne juróom-ñaari niiru euh, diiwaan la loolu lépp sëñ Abdou Lahad moo ko dajale tabax kër goo xam ni maanaam lépp xam-xam rek la fa jublu woon wax nga ko léegi tabax euh, université boo xam ne dafa bëggan doomi réew mi ñëpp di fa ñëw di fa jàng dafa dafa dafa sàkk xam-xam kon sëñ bu Lahad yàlla na ko suñu borom fayal yàlla na suñu borom defal dégg topp ñu ngi santaat sëriñ Abdul Karim Mbàkke bu baax a baax ci tawfiix ji nga xam ne defal nanu ko ñu ñëw fii ci këram tey te ku ne xam na ne ni nga ko waxee léegi moom kat bokk na ci ñi nga xamante ne ñooy tax xeex maanaam ñooy dëggal liggéey bi sëriñ Abdoulaye doon doon doon liggéey ndax fi ñuy waxe kii ñu ñoo doon waxal tey bokk na ci ustaas yi nga xam ne ñooy jàngale fii ci daaraam nga xam ne daara jàng fii suñ ginnaaw la ko tàmbalee ibtidaaiya i'daadiya ba sanawiya mu ñu di ko fi jàngale moo dafi yar doomi murit yi di leen jàngal xam-xam ak doomi jullit yi ci quartier bi nga xam ne mooy quartier boo xam ni quartier bi sëriñ Abdou Lahad la te sëriñ Abdou Karim Fall yàlla na suñu borom yokk ay leeram bokk ci ñi nga xam ne ñoo ko taxaw waaye jëmmal fi jumaa joo xam ni jumaa la joo xam ni jullit ñi dañ fi joxe seen waxtu juróom waaye dafi jooxe seen ak ajjuma kon yàlla na borom fayal ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala màggalam gi nga xam ne moom lañ jublu te mooy alxemes ñu àgg ceeg jàmm bi jaahi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa axiru daawaana ana alhamdulilahi rabbil alamin wa bi kalaami asi sudur al xawmi almuminina an lawmi wa bi ba Seex Bamba làqoo wam sa sin ñëpp far mu toog fi magam Seex Mustapha lépp daal di leer ñu déggoo juboo tey ànd lu mu mu daal di ba bay bi mbay moo xam ne àll bi lépp leer jumaa ji borom Tuuba digal nit ñi door a dem mu ànd ci ak Seex Mustapha yuy def leer mu ñotti firaay bi daldi woo nit ñi dénk leen na ngeen aw njërum jub moo ma doy mooy li wér leer ba Seex Mustapha la koo ca dassa si ma jóg ni Seex Fallu jiitul maa ngi topp ci yow bu leer Sëriñ Fallu àggal naa wi julli ko ñépp bét mu ñotti Kuraan yi fépp booloo ne nañ leer